hello oh, hello mbokku téléspectateurs yi waa Chrono Actu ñoo ñëwaat fii euh, ci seen émission jàmbaari diaspora donc euh, suñuy wax jàmbaari diaspora di wër biir États-Unis ba dajeek ndaanaani diaspora donc euh, dañuy wax rek lu dul bàyyi ko moom mu présenté boppam parce que yaakaar naa ne sax bu ko timalee caméra yi dina doy sëkk pour présentation bi mais teewul il faudra que ñu laaj ko question bi waaw ndaanaan ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar di leen sant di leen fay. waaw Mo Gates jeune taalibe sëñ Touba tudd Mouhamed Diallo kooku mooy Mo Gates. moo waral dajale bi. bi si naka. dajale artistes yi dajale sénégalais yi moo waral dajale bi biir balaa dajale bi balaa artistes yi dafa am lu gën a am solo mooy euh, ndaw yi nga nekk euh, ndaw yi nga xamante ne que dañuy nekk euh, Amérique ñi nekk ay jeunes entrepreneurs ñi nekk ay docteurs ñi nekk ay policier ñi nekk ay solda ñi nga xamante ni que euh, bés ba bésu événement bi dañ leen war a euh, jox ay prix ay awards foog naa loolu moo ci gën a am solo dajale bi nag du dara lu dul euh, moccaat yàqul ceeb. du dëgg da kay safal lekk moo waral dajale bi. donc mbokk téléspectateurs yi comme li leen ko doon waxee rek xam nga dañuy wax ni jàmbaari diaspora donc képp kuy dajale di boole ay nit. yaakaar naa ne mënuñu la ñu def émission bu mel nii exclure la ci jàmbaari diaspora donc euh, dañuy delloowaat waa ji question bi mooy que ne euh, lan lan mooy sa programme réellement politique bi nga xamante ne moom nga am biir États-Unis pour la population sénégalaise au fait. programme yi bëri nañu sur le plan social bëri na sur le plan euh, bëri nañu. you know bëri na lu ñuy def bëri nañu daanaka tey sooy xool bu baax suñu suñu emploi du temps mille vingt deux sax jeex na. instant mënu ma jël benn appel lu dul 2023 <laughs> yaa ngi comprendre donc tey lu ñuy def bëri na trop sur le plan religieux sur le plan sport sur le plan culture sur le plan éducation lu ñuy def bëri na mhm. donc gis nga su fekkee ne da nga wax ci côté euh, sociale wax ci côté politique donc mun nañu wax ne mun nañ attendre que ne yaa ngi am benn idé idéologie politique bu mag mag mag mag pour nga xamante ne ñooy ndaw ndaw États-Unis bi jàmbaar dama bëri ay maxane maxane mhm. politique maa ngeeg moom mbaxane businessman maa ngi moom. mbaxane promoteur maa ngi moom. mbaxale mbaxane euh, taalibe Baye Fall maa ngi ak moom. donc tey lépp loo xamante ni que ci at bi dafa bokk suñu emploi du temps rek. Uh-huh. mbaxane boobu la ñuy sol. Uh-huh. ak lu mu mënti doon. lan ngay proposer suñu ndaw yi nga xamante ne sur le plan politique ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal di la xool. sur le plan euh, li ma leen di euh, proposer maanaam yaatu na tey maanaam xanaa dañuy def beneen interview bi nga xamante ni que loolu dañ koy dammat. loolu noonu maanaam loolu loolu rek interview boppam la. Mhm. da ngay toj yax bi maanaam. waaw moi mooy genre il faut ñu am benn interview bi nga xamante ne loolu pour loolu kase la. uniquement politique. loolu pour loolu kase la mais jamono ji mbaxane promoteur laa sol. événement bi foog naa jour jour ji mooy ñaata mooy quatre jours donc mbaxane promoteur bi laa sol. comme ni mu leen koy waxee rek effectivement euh, dañu dajeeg jàmbaari diaspora dëggantaan effectivement donc loolu tamit teewul dinañu delluwaat parce que tamit xam nañ ne ñëpp. point commun bi c'est le Sénégal donc dañuy delluwaat Sénégal laajaat ko avant dernière question bi mooy que ni moo ngi est-ce que da am benn parti politique boo xam ne ci nga bokk. Euh, jamono ji euh, maxane promoteur laa sol <laughs> déggoo ma de maxane promoteur laa sol euh. te dama am événement le 24 incha allah jour J mooy 4 mhm. te dafa am kon lu ma ko expliqué ay ndaw yu bëri yi nga xamante ni que te leen nar a jox ay prix ay ndaanaan. xam nga tey man bi may door a door bëggoon naa ab nit ñëw gis ma ne ma ni que moo géet maa ngi lay gis li ngay def baax na dina baax jox ma prix wala reconnaître loolu noonu donc reconnaissance boobu noonu moom lañ nekk di joxe le 24 décembre incha allah mbaxane boobu laa sol su ma génnee ci mbaxane boobu rek foo ma song ma wuyu la incha allah dégg nañ dégg nañ la et puis dafa mel ni dégg nañu ndaanaan dëggantaan effectivement parce que tu nous parles effectivement su fekkee ne ci côté politique après dina ñëw effectivement ak yow ci côté politique mais une dernière et dernière question lan ngay ban espoir ngay jox jeunes yi nga xamante ne ñu ngi toog Sénégal encore di la suivre am ñoo xamante ne genre modèle nga si ñoom ñi nga xamante ne dañuy am espoir dañuy suñu gisee moo ngeet bon dañuy bëgg a doon ko moo lan leen di wax lan nga leen di wax réellement la ñu war a mën a euh, dëkku pour mën a doon moo man jeune laa comme ñoom sénégalais laa comme ñoom falaa juddoo fala yaroo waaye li ma leen di wax rek mooy jàpp tëw bàyyi amul bàyyi amul ragal you naw mm-hmm. yokk cere dolli ñeex <laughs> waaw kon mbokk téléspectateurs yi je pense que ne comme ni ko waxee woon rek euh, dañuy wër di xool ndaanaan yi ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey pour suñu dëkk ñi nga xamante ne ñu ngi def lu ñu mën pour askan mi ñu ngi xamante ne ñu ngi jàppale euh, sénégalais yi muy euh, au niveau du pays muy mel nii tamit fii à l'extérieur donc dañuy def lu dul remercier ko et puis tamit jox ko mu sànni dernier kàddoom ci émission bi nga xamante ne mooy jàmbaari diaspora maa ngi nuyu ñëpp ñëpp koo xamante ne reconnaître nga jëm ji ci caméra bi rek maa ngi lay nuyu du la fay gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp. jërëjëf Mor Gueye. kon jeex na. jaajëf.